madame Diarra Fatoumata Cissé ñu ngi lay nuyu. fay. ñu lay dalal ngay directrice direction archive euh, Sénégal euh, tey jii nga xam ne ñoo ngi màggal euh, bës bi ñu jagleel boobule métier waaye it semaine bi door depuis lundi ñuy koy màggal tamit ñu bëggoon a xam laata ñuy waxtaanee archive lan la document yooyu di représenté ci réew. waa euh, document yi ngay laajte moom mooy archive li leen di wund mooy bu nit di liggéey boo commencé activité boo mën a def ding nga ko sukkandiku ci bind mhm. bind boobu ngay sukkandiku nag fa dossier bi jaar yépp boo ko dajalee mooy doon archive archive bi dina nekk archive bu privé wala archive bu public muy organisation yi wala société yi wala état bi mhm. dina am aussi archive yoo xam ne ne archive bu famille lay doon moom la ñu tuddee archive privé mhm. wala entreprise privée yi loolu mooy soloy archive mooy ay kàggu daal maanaam ci olof. kon mën nañ jàpp ne ba Sénégal moomee boppam ak léegi lépp lu jëm ci document concernant euh, Sénégal yéen a ngi ko denc benn euh, place. Ah, bi Sénégal moomee boppam ak léegi mën nañu wax ne archive nationale li mu denc ëpp na loolu. 1816 mooy bi tubaab yi duggee Sénégal. Mhm. boobu ba léegi am na ay fonds archive boo xam ne ne boobu la beneen bi mooy bu AOF bu fédération du Mali. Mhm. ak bi nga xam ne moom nga ma laaj léegi mooy bu mujj bi. Mhm. waaye boobu moom li ci nekk mooy. am na benn xaaj bu am solo bu ci nekk boo xam ne egsiwul archive nationale ndax archive nationale amatul place pour euh, collecter ko. Mhm. mu ngi ci ministère yi ak administration centrale yi. Mhm. ndax amuñu bâtiment bu mun a jël loolu en charge. ci denc gi nan ngeen di liggéeyee. waaw ci denc bi moom bu ñu jotee documents yi archives yi dañ leen di traité traitement boobu lañ tuddee description archiviste ci suñu métier. dañuy trier daal di jël li ci am solo def ko classement daté ko mhm. defal ko analyse defal index index yi nag mooy mooy yi nga xam ne ne boo ci sukkandikoo di nga mën a seet li ngay soxla mhm. bu pare paree ñu créer ko répertoire répertoire boobu nag bu chercheur ñëwee archive national boo waxee li mu soxla ci moo li ñu tuddee mot clé moom la ñuy xool xam ban la soxla ñu orienté ko ci fond ba mu war a doon aussi tey tey jii comme ni nga ko waxee benn chercheur wala benn Elisabeth doon am benn euh, recherche yu muy def ñëwoon archive nationale nan lay liggéeyee ak yéen. waaw bu ñëwee dafay présenté wu bu fekkee ne mi ngi door a egsi ñu ko comme lecteur bu egsee nag mu wax requêtam remplir benn fiche fiche bu ko euh, remplir wax ci solos euh, liggéeyam li mu koy bu dee day def ay mémoire wala thèse wala mu am recherche personnelle. Mhm. wala documentation comme journaliste nga. su ko defee ñu xool lan la soxla ñu daal di koy euh, orienté euh, communiqué ko document bi mu soxla ñun jox ko répertoire yi mu saytu ci li mu soxla bu ko soxla bu demee ci rayon yi fekk ñu classé nañ ko léegi ñi nekk ci banque de prêt bi ñoom ñooy dem indi ko jox ko mu consulter léegi nag damay rappeler wante ci fii ne archive nationale complexe la mm-hmm. documentaire am na archive yi am na aussi bibliothèque mm-hmm. muy def office bibliothèque nationale am na tam centre de documentation boo xam ne dafa am ay dossier thématique ak ay dossier de personnalité. madame ci soxla rek ko communiqué ko. madame ci liggéey bi yan jafe-jafe ngeen di faral di jànkonteel euh, souvent. waa jafe-jafe bi ci gën a tar moom moom mooy manque espace bi ndax ku wax conservation denc wax dencukaay. Mhm. te loolu nekk na loo xam ne ni daf ñu manqué. ndax euh, fi mu nekk nii amaguñu bâtiment dédié. Mhm. moo tax boobaak léegi bu ñu buñu ñu bu ñu bu bu ñu nekkee ci euh, suñu liggéey. Mm. dañuy am problème mënuñoo dugal lépp lu bokk ci li bokk ci archive ministère yi nga xam ne ne dépuis indépendance ñu ngi fi ñu war leen a jël Euh, di leen collecté di leen denc archive nationale. kon daal problème denc ngeen am ndax ay. ñàkk locaux principalement mooy problème mu denc. lii di kayit gi lii di kayit gi ci wàllum conservation durée comme yi ngeen wax muy document am mille neuf cent au delà de mille neuf cent soixante ak tey. waaw parce que pour document yi kayit lañ nekk daanaka ñoom ñëpp ci kayit lañ nekk. Mhm. kayit bi nag bu yàggee dafa tàngaay bi amuñu amuñu bâtiment boo xam ne dafa nekk aux tàngaay bi ak euh, lumière yeeg li ci wënd yëpp daal da koy indi suñu climat tropical bi. Mhm. day tax kuy jikaaw gaaw a damm gaaw a gaaw a yàqu. léegi nag euh, loolu mooy tax ñun fi mu nekk nii dañuy xalaat bu ñu gisee document bu commencé sonn wala mu yàqu te même chercheurs yi ñu koy jox ñu koy manipuler sax seen loxo yi koy laal ndax loxo dafa am acidité. Mhm. day koy gën a yàq dañ koy rocci numériser ko pour garder contenu bi ndax li ci neen ñu bañ koo perte en attendant ñu am projet numérisation bu taxaw. ci wàllum locaux yi justement yaa ngi doon wax sànq ci nasaraan ni am na benn projet euh, jëm ci mbir moomu. waaw projet bi mooy projet bu mujj bi ndax projet yi defe naa bi mooy ñëm bi. Hmm. ñu ngi ci projet boo xam ne dafa intégré numérisation boobu chef de l'État Diamniadio la ko xalaat léegi ñu def projet maison des archives intégré projet de numérisation. Hmm. des fonds documentaires des archives nationales. léegi étude de faisabilité bi pare na li des moom mooy financement bi Mhm. ndax am na àpp guñ leen jox ci projet. googule àpp du ma ko mun a wax ndax euh, projet bi comme taxawagul euh, pare na étude de faisabilité bi mais comme commencé guñu construction bi. délai yi ñu waxoon fi ne doo ko mën a respecté ndax bâtiment bi di commencé buñ ko construire. tey seen liggéey di jànkonteel ak xarala yu yees yi euh, mu mel ni euh, dañ leen fi bàyyi ngeen war a dabe euh, def mën a ànd ak ñoom méngoog jamono ndax Sénégal jël na paramètre googu. xarala yu bees yi moom allah kulli àll ku liggéey ci archive war nga xam ne mooy suñu sukkandukaay bu ñu war a tudd opportunité la. il hmm. faut ñu sóoraale ko. sóoraale bi nag mooy problème bi mooy numérisation la dafa laaj ay moyens mhm. te moyens yi moom la ñuy wax ni équipement la ak mm, euh, technologie bi sax mu ngi fii xarale bi mu ngi fii ndax xale yi ñu ngi am compétence yi te conseil international des archives aussi tout le temps mu ngi def ay normes ak ay directives waaye daal mm, li ñuy laaj moom mooy ñu dimbale ñu ci ndax documents yi ñuy denc dañ koy denc fii ak àddina jant bi di so di fenk plutôt léegi nag bu ko defee bu ñu amulee numérisation documents yi fii ki at dinañ ko ñàkk ndax ñu ko commencé màgget ndax conservation bi ñu nekk nii du du condition yi normale édition 2021 bu semaine internationale archive ñu door ko depuis euh, lundi euh, le neuf gi ñuy màggal bés biñ ko jagleel euh, Sénégal nan la màggalee semaine bi ak bës bi waaw damay fàttali ne Sénégal moom jàmbaar la ci màggal sama journée internationale des archives d'abord. Mm. ndax depuis 2008 bi ko conseil international institué Sénégal chaque année à travers direction des archives daf koy màgg jëmbal depuis daaw jéeg nag la indi semaine internationale bi. Mm-hmm. waaye ni mu tombé pandémie Covid 19 ñuy éviter rassemblement yi moo tax ñun ren direction des archives ñu ne. dañuy def exposition sur l'histoire euh, du Sénégal à travers les archives. Mm-hmm. délocaliser ko yóbbu ko Ndar d'abord muy exposition itinérante buñ fa jógee dem Thiès trois jours à Ndar don la journée phare. 9 mm. juin bi. léegi exposition bi pour won population région yooyu que archive am na solo. Mm-hmm. sensibiliser leen aussi sensibiliser jeunes yi ak euh, pouvoir public yi ndax bi mooy dooleel archive. Mm-hmm. ak wane solom que war ñu jàppale archive ñu am màkkan. Mm-hmm. ñun ñii suñu ñu sensibiliser ñun professionnels yi ñu xam ne ñu war a ñu war a may archive ci formation ak for euh, denc bi bu sensibiliser tam xale yi ndax gis nañ bu manifestation amee rek bu ñu attaqué bâtiment administratif archive yi la ñuy jubal soit ñu taal ko soit ñu saccagé ko léegi nag loolu mooy solo man pour renforcer archive yi solo semaine bi sensibilisation la ndax li ñu exposé noonu mooy documents yi pièces yëpp ci archive nationale lañ ko génne. Mhm. te buñ ko dencul woon cent seize ak léegi ko fekk tey. parce que bala nga ne naam ne fa. tey bu ñu waxee ñu dooleel benn mbir c'est parce que dañoo gis ne doole ma ngi gën a wàññeeku ah, ndax lii dafa firndeel ne archive boo moyul fii yeeg jamono ay at yu néew maanaam liggéey bi ñu bëri duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci dem wala dina dina réer. Ah, dooleel bi sax du du thème bu senegal jël thème mondial la. mais dëkk yi gën a avancé nga xam ne seen archives yi moom macha allah dafa mucc ayib ñoom sax ñu ngi ci dooleel bi waaye ñun dañu gën a am cër ci dooleel bi ndax ñun suñu dëkk yi dañu amul farata trop ci archive mm. waaw parce que ba loolu nag mooy tax ñu dimbale métier bi valoriser fonction bi léegi nag mais du métier bi métier avenir la man awma ci ñaaw njort métier bu jëm kanam la parce que entreprise yi ñi ci gën a yeewu xam ne buñ bëgg nañu préserver seen liggéey mm-hmm. danañu fonk archive ndax mënoo prouver dara te amuloo kayit ji euh, preuve archive preuve la dina dimbale tam aide à la décision comme ni ñu koy waxee ndax boo ci soxla sukkandiku ay ati at wala ay siècle ci gannaaw. Mhm. benn xelu doomu aadama mënu ko fàttaliku te moom ko doon fàttaliku mënu ko teg comme preuve lii ñuy wax naan faral di wax naan ndajeem tubaab euh, kayit mu loolu mooy preuve archive di indi. tey ndax jàpp nga ne archiviste war na chômer ndax euh, gisoo solo ci lépp euh, lu jëm ci entreprise. normalement ay baat ñi muy formé ñuy génn ñu chômer parce que euh, structure yëpp a ko soxla commencé domaine public ba ci domaine privé. léegi nag malheureusement ñenn ñi bu ñu gisee na am nañu damay tooñ yéen waa presse bu ñu amee ay kii numérique rek dañuy xalaat ne numérique bi mun na yóbbu lépp mais bala ngaa dugal ci numérique bi il faut ay nit ñu tudd ay archiviste traité li nga soxla sa information. loolu nga constaté maanaam Sénégal am na entreprise yi nga xam ne joxuñu ko solo. bari na bari na ñu ko joxul solo waaye ku ci dem ba ci cëppaandaw ba di nga dajeeg problème boo xam ne di ne su ma yëgoon. léegi nag moo tax ñu leen di lancé ci euh, à travers semaine bi que ñoom ñëpp ñu solal archive recruté ci xale yi am nañ formation bu solide fi mu nekk nii ñu ngi fii sur le marché du travail di xaar ku leen jël. madame la directrice ñuy euh, donc euh, sa plaidoyer ci semaine bi nga xam ne ñoo ngi euh, màggal lii di archive ci àdduna wérngel képp plaidoyer bi sax man damay wax ne dana weesu plaidoyer ndax plaidoyer bi dafa xaw a yàgg mhm. kon fi mu nekk nii li tubaab di wax cri du cœur mooy damay jooy damay damay damay ñaan ndimbal pour pouvoir public yi muy état bi eggali maison projet maison des archives mhm. parce que tant que amuñu maison des archives mën a jël euh, documents yi nekk ci man administration centrale yeeg ministère yi ak euh, espace public bi yépp duñu mën a wax carrément mémoire au Sénégal te li ci gën a doy waar mooy mémoire bi ñu amoon taawu colonisation ba léegi ñu ngi ko bu baax archive nationale mais Sénégal fii ak ay téeméeri at mémoire au Sénégal indépendant lakk lañ ci mujjee moo tax may ñaan ñu jàppale ñu ci réalisation maison bi nga xam ne sans moom lu ñu def def def dina am lu des ndax euh, mënuñoo conserver sans locaux ko justement est-ce que euh, maa ngi jégalu ndax da leen di dal ngeen di am genre accident yooyu comme ni nga ko waxee lakk ay lakk-lakk ay imprévu et tout loolu nag damay wax yàlla dimbaleegum nañu amuñu ko waaye nag du lu ñuy euh, daq ndax tant que nekkoo ci batiment boo xam ne dafa nekk bâtiment dédié boo xam ne solo si mooy denc nga xam ne ne porte coupe fa Euh, miir coupe fa moo ci nekk loo xam ne ne da nga nekk ci benn batiment makkaan boo xam ne ne provisoire la denc archive taxu ko woon a jóg loolu yëpp jarul exclure moo tax ñu dañuy nekk tout le temps suñu kii di veiller di ci bàyyi xel. madame la directrice ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ok jëf di fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal directrice euh, bu direction archive euh, bu Sénégal.